baax maa lay ziar. delloo ziar. sant gërëm yàlla. ñu fàttali ñu tur bi rek. waaw man la suus wow koŋ. suus wow koŋ. waaw suus wow koŋ. waaw suus maa ngi dégg gars yi naan yaay mécanicien booy ñaan. ñun ñoo koy réparé fii ñun ñoo dëkk ak moom. Mhm. waaw oto bu paanee ñoo koy réparé. Mhm. waaw. nan ngeen waajee combat bi jub si moog Balla Gaye premier janvier. non combat bi moom ñun bu doon suba suba la sax pare nañ. ndax ay xale lañ.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 Balla Gaye mënul diire combat moom échange bu doon revanche da xam boobu la war a préparer pour mu dajawaat ak Boy Niang mais Balla Gaye wallaahi taalaay mënul daan Boy Niang loolu la ma la ko wax fii day doole bi ñu yor hmm. ñun waa géej waa yëpp dañ leen daan Balla Gaye ménager rem yi Boy Niang daan na leen mbapat ñii daan Balla Gaye Boy Niang dañ leen daana daana daana daana daan man moom géej waay moom ñun suñu vidéo rek fa la jógee man moo tax combat bi ci duma si waaw ñun moom dañ leen daana daana daana daan ba ñun moom géej waay moom xaw ma lan la mais suñuy nammee lañ waaw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 ñooy dawalee nuñ neex di sacrifier suñu life di sacrifier suñu vie kon nag combat bi dañoo bëgg nuñ ko doon defee ñu defee ko noonu man ñëpp laay woo Eumeu Sène Ama waa Pikine képp ku jug ni deretu Pikine mooy 100 pour cent Pikine waaw nañ jugaat ñun ñëpp nañ jug ñëw jàppale si booy bi te xam ni booy bi incha allah si kàttanu yàlla dina ko daal waaw boo amoon tey nii looy dënk Boy ñaa lan lay doon non Boy Niang moom lu ma koy dénk dama koy dénk ne ko combat yi si jot a jaar ak combat bi duñ benn ndax booy ba nga nekkee xale ba léegi da nga yàgg a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 du nitu dara. cuub dara toog ba muy doog a départ fii ne si tugalóor la ñu siy jàpp. naan mboroo di waaw ah, naan mboroo di gars di si rey seen bopp. ba mu jëlee retraite jaar ni dem géejawaay loolu moo warul woon. waaw paa yi bari yëpp dañoo toog Pikine su la neexoon mën nañ dem mais baabooy lu mu ñu def dañoo métti. waaw warul woon dem di génn Pikine te Pikine ne ko yàq ngemb. voilà waaw. waaw noonu la demee nag. kàddu gu mujj gi lan lay waaw li may doon mooy yàlla ñu yàlla may ndam le premier janvier bu ñu ñibbisi fii yàlla ñu waaw Boy Niang moom indi nañ fi ndam bu ne mais ndam bii moom ñun dañ ko bëgg waaw pigin ñoo ko bëgg dañoo bëgg nga daanal ñu waaj yi wax ji jeex ndax bala gay moom boo ko daanee rek desaloo ñu dara